ki benen laaj bi Serigne Touba benn borom karaw gu ñuul la dem na ñent at kenn xamul lu ne mu jël bigat fey ni wa badrun munirun gaaba fil gharbi summa lah min gharbi shamshan rifatan wantishara nee na mi ngi dem di doon wer bu ñëwee doon jant tim ñep de lettre bi duggal ko ci suufu deram Tap lettre bi lettre bi naaw ba gamo lolou du fax fax bu gaaw sax fax bu gaaw sax. ah. sëriñ Tuubaa tourné lettre bi ni lii de sëriñ sëriñ see ko bind muy Cheikh na Cheikh Saad bi ñu ni ko bindal mu ni salaamun ala saadin saidin mu bajjalin yukril mul qaasi wa man kaana jara dëggal sëriñ Tuubaa ak a baax salaamun ala cheikhi suyuuxi sëriñ Tuubaa nee na sangu-sang yi kenn la ñu ni ko kan mu ni mooy Cheikh na Cheikh Saad bi الذي مقام رفيع وليس يبارا نيوكو كان موي شيخنا الشيخ سعد مو موي كيغا خامني مقامام دا فا كاوي تا يالا با كين مونتا دندك موم بو ديمي تا كاو المختار لنكو تودي كان موي المختار لو شوازي كان موي لو شوازي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مختار المختار خيرة الاخيار مختار وهو الابر ابن الابر ابن الابر ابن الابر بر الى ابي البشر مسلسلا ممن سجد يونتبي صلى الله عليه وسلم yàlla dafa ne woon Moussa na bi bani israila annahu man laqiyani wa huwa jahidun ba ahmada adxaltahu naara qaala yaa rabbi wa man ahmadu qaala maa xalaqtu xalqan akrama alayya minhu yàlla nee na Moussa ahmed mii nga may laaj di Mouhammad musuma bind ku ko gën a màgg katabtu ismahu maa ismi fi l arshi qabla an axluqa samawati wal arda man yàlla jël naa turam boole kook sama tur bind ko ci arash laataa may bind asamaan ak suuf ni hee Moussa xam nga lu ma lay wax man yàlla منكو لان ان الجنه محرمه على جميع خلق حتى يدخلها هو وامته وسا خنا خموني حرام نتي كيب كوم دون تانك يونت بي ات خيتام دوجو تي بامو جيخ شيخنا شيخ سعد وافضل الرسل من فاقت رسالته ما في السماء وسرا من سائر الامم موتاخ سانك من لا الى tous les attributs لا la perfection hmm. moom et il a le plus haut rang dont le secret duquel émanera tout secret toute assistance Il al muraadu min jamii al xalqi li ajlihi xuliqat jannaatu rahmatihi wa naaru qad xuliqat liman a le plus haut rang dont le secret duquel émanera tout secret, toute assistance. kenn mënut a xam maqaama Cheikh na Cheikh Saad Bou parce que c' est un mystère engourdi dans un mystère. Euh, Nimjat comme ni nga ko waxee yàlla dafa ne woon suma affaire du min haythu afada an-nas mhm. mbëkkante leen jiiroo leen jublu leen fa yiw ne. Mhm. Nimjat yiw moo fa ne. Mhm. du Cheikh na Cheikh Saad Bou fii lañ njëkk a de. déedéet moom ginnaaw ba ko bàyyee génnee. moom Cheikh na Cheikh Saad Bou laataa muy xam Nimjat. Mhm. wala laataa muy dëkk Nimjat dëkk na Tuézypte. Mhm. dëkk na fa 16 ans. Mhm. gas fa teen samp fa juma. waaye bàyyam cheikh na Mouhamed Fadil ni ko la terre sainte bi ngay wër suuf su barkeel bi ngay wër. Nimjat la tudd. ah Cheikh na Saad bu bàyyi foofu di wër Nimjat. di wër Nimjat ba daj Nimjat sanc ko en 1909. en 1917 mu génn àddina am naa rakk sax boo xam ni moo ko fa gën a yàgg moom yàggul Nimjaat mm-hmm. moom cheikh na cheikh Saadu bi waaye ba mu koy sanc mm-hmm. dafa woote ba ñépp daje mu ne ko fi bokkul nag fi génn mm-hmm. li bor lépp dem mu ni baarik lana ardana bi ba an ajalin fa hëb lana nicmatan tuula min an niami yow yàlla ci barke baa bi nga def ci bismillahi rahmaani rahim barke lako nim jatt lépp lu xéewal def ko nim jatt ni waj'al darixiya ka baytikal haram tuqda biha hajatu sa'irul anam tumha bihi dhunuba yushfa al marad tu'ta bihi al yushfa al 'arad yow yàlla defal sama beurep bi di nim jatt mu melni ni Makka aajo bu Makka di fajj ku ñëw nim jatt yàlla fajj bàkkaar buy set na sete nim jaat waaye feebar bu màkka di faj ku ñëw nim jaat yàlla na faju wajaal darixi ka baytika alxaram cheikh na cheikh saad bu ni woon waxfir li kulli zairin lana yaduur fi chahri sawmika alladi faaqa duhuur moom il avait fait une prédestination laataa muy sant Nimjaat xamoon na ni kon bu yàgg dina am Nimjaat xamoon na ni kon bu yàgg Nimjaat

ci pèlerinage waxuma nag waxuma pèlerinage laa wax pèlerinage mooy nga jógee dëkk dem dëkk dama ni ginnaaw Makka un pèlerinage le plus peuplé après la Mecque c'est Nimjat experts yi maanaam luy dugg nit ci doo ci Nimjat da da leen a yëm parce que cheikh na cheikh Saad Bou dafa ne woon wajaal min man jaddada diina nabiya ahmada wa fiika raha wa gada yazdaadu fi kulli sana yow yalla yalla nga ma def may xey di gont ci diine sayyidina Muhammad bi te ko ci sunna te yok yokk at mu ne kon moom li ma la wax sànq ni c'est un revivificateur aji ki yessal diine la mom cheikh na cheikh Saadu Abihi motax yalla may ko fu mu wàcc ñu top ko fu mu wàcc ñu top ko fu mu dugg ñu top ko mom cheikh na cheikh Saadu parce que liko yalla may c'est inexplicable da ngay dem ba nek ci devant l'ineffable tu peux pas expliquer parce que de dafa bëri moom Cheikh na Cheikh Saad Bou mu sanc ci Nimjaat nag Cheikh na Cheikh Taalib Bouya feddali kóllëre googu woo nit ñi en 1949 sama maam El Hadj Samba Ndoukoumane Seck jiite leen benn oto moo demoon te ëllëg sa nag te ñëpp fàq dem mu barke moo tax ma ni dem Nimjaat jot na te dem fa sax lu war ma ku fa dem barke topp la ziyaaral Cheikh na Cheikh saat bu jàmbaar la suufu Nimjaat sell na misaal maay màkkata fa yeneen juddoo yéeme na Cheikh na Cheikh Saad Booy ndono la wajaal dara xiya seede la ke baytikal xaram lii wóor na Cheikh sat Boo donn mam ja man de Nimzaat doy na ma li tax mu doy ma mooy c'est la fierté boo demee dangay ngay békk boo demee doo xàmmee ki am ak ki ñàkk déedéet boo demee doo xàmmee ki am ak ki ñàkk ñëpp ci suuf la ñuy tëdd Nimzaat mooy dëkk bu amul yoo amul weñ li nga fay nekk yëpp yoo du la mat weñ du la mat lii may wax ñii dem Nimzaat xam nañ ko barke képp rek dongo kessé la ben symbole mo fa am ben musique mo fa am ben sonorité ngay dégg muy la ilaha illa allah la ilaha illa allah jooju nak la cheikh na cheikh sad bu don ci maamam sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga xamni moy kalima bi nga xamni boko waxe rek yàlla geureum la cheikh na cheikh sad bu fu mu nekk laa ilaha illa allah mo koy animer ba nim jatt bo deme nim jatt wallahi alazim alkarim bi nga xamni fi gaynde mo fi teud ku raw gaynde mo fa teud ku ñëw mu faj sa aajo te mooy Cheikh na Cheikh Saad Bou. Cheikh na Cheikh Saad Bou jaamu yàlla la jaamu yàlla la jeunes et adolescents qui sont comprimés et confondus dans le temps qui permettent aux expériences spirituelles de s'installer de façon à accélérer le processus d'accomplissement des dons de puissance et des dévoilements dans les hauts lieux de la proximité بسعى عكوك قديم بارك لنا أرضنا بباب أن أزل بارك لنا أرضنا بباب عن عجل بارك لنا أرضنا بباب أن أزل يوا ست تي في لي تخ شيخنا الشيخ سعد بو دوي وار دافا دون مامام شيخ عبد القادر جيلاني بارك لنا بباب أن azal xam nga weeru koor gi ñun xaadir dañ cee am particularité barik lana abdana bi babi al azal dafa am góor gu baax goo xamante ne moo sos tarixa bi di cheikh abdul qadir jeylaani barik lana abdana bi babi al azal nga ni ma kan mooy cheikh abdul qadir jeylaani man la mooy sultaanul aarifin barik lana abdana bi babi al azal le prince des connaisseurs de Dieu c'est Cheikh Abdul Qadir Jilani بارك لنا أرضنا بباب الأزلي يا تاج المحققين c'est Cheikh Abdul Qadir Jilani بارك لنا أرضنا بباب الأزلي le sommet des réalistes c'est Cheikh Abdul Qadir Jilani بارك لنا أرضنا بباب الأزلي يا ساق الحمية c'est Cheikh Abdul Qadir Jilani بارك لنا أرضنا يا بعد لا بروفور دي نكتار انيفيرون سي شيخ عبد القادر الجيلاني يا جميل المحيا سي شيخ عبد القادر الجيلاني اي واي لا سبلانديد دان سا فيتاليتي سي شيخ عبد القادر الجيلاني يا مصباح الظلام مو شيخ عبد القادر الجيلاني للسير جدتنا بورس الشيخ عبد القادر الجيلاني يا شمس بلا أفلين الشيخ عبد القادر الجيلاني سولي كنسكوش جميع الشيخ عبد القادر الجيلاني baarik lana ardana bi ba an hajali baarik lana ardana bi ba bi an azali daa am fu may jëm ak yow jëm fa Sénégal baarik lana ardana bi ba bi an azali téléspectateur waa 7TV dama bëgg ñu xam kan mooy Cheikhna Cheikh Sadbou ewa dama ne la le Serge des ténèbres sa Cheikh Abdoul Qadir Jilani يا مصباح الظلام مو شيخ عبد القادر جيلاني عرضنا بباب أن أزلي يا شمس بلا أفل من الصلاة كنسكوش جمال شيخ عبد القادر أباها بابا بارك لنا أرضنا بالله يا بدر بلا كلف لا لين كي سكت جمال شيخ عبد القادر بارك لنا أرضنا بباب أن أزلي يا بازل أشهب لفوكو قريب بانجوري بينا خمنتني بو سابي نيب ديغكو مو شيخ عبد القادر جيلاني أرضنا بباب أن أزلي غورغي 70000 personnes ñoo koy wër pour jàngale. Tanil awliya ma ko billahi ta'ala wa ma ko bi rasulillahi barik lana dama ni soixante dix mille personnes soixante dix mille personnes ñooy wër Cheikh Abdoul Qadir Jeylaani buy jàngale. Eh, lay moo baax papa Cheikh Abdoul Qadir Jeylaani bu waxee ki ci kanam ba ci ki ginnaaw soixante dix mille personnes ñëppay digg. الإمام يا باجل أشهب يا فرج الكربي celui qui dissipe les malheurs chez Cheikh Abdul Qadir Jilani يا غوث الأعظم le secoureur suprême chez Cheikh Abdul Qadir Jilani يا سلطان الواصلين يا غوث الأعظم يا غوث الاعظم شيخ عبد القادر الجيلاني يا شيخ الكل سرنك نيب موي شيخنا شيخ عبد القادر الجيلاني امام ابو الوفاء القادري دا فا جيل ورد بي دوكو امام ابو الوفاء القادري دوكو تاريخ بي نكو كل ديكن يسيق ويسكت الا ديقك الله اي سيك دي نن بري واي سيك بو ساب دينا نوبي بامو دس ياو سابو شيخ عبد القادر الجيلاني ني لاج لولو شيخنا شيخ سعد بو لولو لان من هذا الورد يعني عن كل ورد ولا يعني عنه ورد وصاحبه لا يموت الا بحسن الخاتمه ولا فعل ما فعل دقل سسرين شيخنا شيخ سعد بودن كولاج موني هذه الورد ورد بي دينا رامبلاسي بيب ورد te benn wér du ko remplacé te ku ko yor du ko wér du balaa ngay dee jubóog sa borom wa saaxibhu ولا فعل ما فعل نلا شيخنا شيخ سعد بو ورد بي فمو جيغي من وذاك من حيدرة عليا وذاك من سيدنا نبيا وذاك من جبريل من رب السماء ورد بي دال يالا موكو جوخ جبريل نيكو داما جوخ سيدنا محمد بارك لنا كن كن كن كن كن كن كن Dieu, l'inexplicable, est le premier cadre. Dieu, l'inexplicable, parce que mon Dieu, il y a le mot fait le Coran, 6066 ayah, 100, 100, 114 saar 114 saar yëpp waxu kenn nekk ci kuddul waxum moom nag moo composé li nekk ci wér di xaadir muy allah wa niamal wakil laa ilaha illa allah malikul xaq mubin astaghfirullah al ak allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman yii ay waxu yàlla yàlla rocci leen jox ko jibril ne ko jibril dama jox ko muhammad kon yàlla à l'intermédiaire de jibril سيدنا محمد ديل ورد بي جوكو سيدنا علي سيدنا علي جوكو فاطمه موتاخ شيخنا شيخ سعد ابيه ني وذاك من حيدرة علي وذاك من سيدنا النبي وذاك من جبريل من ربي السماء بابا بابا دي ديغي موي خادر بي لمي يوردو كو ورد du turu yalla bo xamantene yow dang ko werd ba mu beut nga koy joxe dedet tuddo gent tamit ñu feñal benn tur nga koy joxe dedet lu jugge ca yalla la kon xadir da ngay japp ni dafa sel dafa set dafa lap mo jur tarxe yëpp nag. xatar dafay tabee tarxe yep dudd ci mom motax tax Cheikh na Cheikh Abdoul Qadir ni fa jaddi rasulallahi taha Muhammad ana Abdoul Qadir cheikh kul tarixat kooku mo jur Cheikh na Mouhamed Badil Cheikh na Mouhamed Badil feñ dul Cheikh na Cheikh sadou Abi Cheikh na Cheikh Saad bu nak am ben parti am benn particularité. suma sama sa ci si àddina Cheikh na. kii ngay wax borom nim zaata saalihin moom day jaamu yàlla laa billaay dëgg la Cheikh Saad jaamu yàlla jaamu araani ubaydallahi jalla jalaluhu wala ya faxral xayra anni ubayduhu wa anni bihamdillahi nabii cheikhina wa dëgg la ñoo na nangul laa billaay dëgg la nga jëf ko fa muy sandam mm. bocet deke muram manis ya kaya jamu ya taxawal li nga wax dafa dafa dafa dafa garaw dem ni cheikh na cheikh sad boy sa wasil la ñoo nga nangul la xam nga ñu tax ñu lay nangul gisuñu ci lu manqué gisuñu ci cheikh na cheikh sad bu lu manqué dafa ni arani ubaydallahi aka neex aka arani ubaydallahi jalla jalaluhu aw ma benn garab bu may takk mu may neex man cheikh na cheikh Saad Bou lu dul doon jaamu yàlla wala liya faxaral xayra ani ubaydahu benn garab neexu ma takkuma benn garab mu may neex lu dul doon jaamu yàlla ndax lan maqaamal ubudiya mooy maqaam ak jaam maqaam ak jaam moom la yàlla taggee Seydina Muhammad yow sama jaam nga yow Muhammad subhaanallazi asra bi abdihi laylan min al masjid al xaraami إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير keroog Seydina Mouhamed toog ca néegu um haani yàlla yebal Jibril ni ko demal ne ko dama koy invité tey ngir mu mun a xool sama jëmm cheikh na cheikh Saad bu ne sabatahu fi leylati l israi ma zaa fi ruyati wal anbai sabatahu fa ma asaabahu jaza mimma raa fi leylatin bi artaba sabatahu li ruyati l ajaibi wa qad raa li agrabi l garaibi cheikh na cheikh Saad bu yow yaa Hmm. Sono wasila bilaay dëgg la wallahi foo ko waxee bilaay dëgg la sama waa Nyonya dëgg la ñoo na nangu sandal boo ca dëkkee mu rambu la jaamu yàlla la seex jamu ya sa bu jamu yàlla ya ya la bilaay jaamu yàlla ya la jaamu yàlla jaamu yàlla la. jaamu yàlla la. ñëpp bëgg ñu na sax sax bu amul morom ci ñun dootul aw morome. bu baax. ay doomi Cheikh naa Cheikh Mohamed Fadal. Mariama yaayam nit ku Ahmed Abde. kooku ju Cheikh Sadou na Cheikh Sadou la bi. Mm. boo demee zaat géej gi bag ba bu xusate suuf bari saa dem saalixiin boo demee sa yàlla faj sa saadul abi saadu man taxallaqa ñoo ko bëgg wa xubb woo bi zayihi taxaqaqa maana ala fadlan min fadlina walaw fudala min madinin xayrana bal innana fudala siqtura nee na taalu ila kaas saqaana bi asaan walaysa la asaahi hubaynun wala babu dil amri min kulli makaani wal bala isa ma waadu lahdu anta sa ul wax doo kenn du moom mu jaamu yàlla la muridu cheikhi faaza bima yuridu فإن مريده قتل رشيد تنال سعادة من ذاك إذ يليز بسعدنا إلا سعيد وهم دق شيخنا شيخ سعد بجامو يا الله موتاخ سي تريز امبورطون لي مالي بغا واخ كو ويك تي موم مونو فخي با بوكالا يالا ديديت لي مو ديف ييب اك بري لين رك لا ديفول موي خار وير وي تبي ديلو وون لولو dama ne lenn rek la cheikh na cheikh Saad bu deful muy xar weer wi te biddee la woon dëkkat weer wi waaw mais leneen lu sa xel jàpp cheikh na cheikh Saad bu def na ko waaye dama ne loolu lépp grandeur neexu ko <laughs> jaamu yàlla moo tax cheikh Saad bu jaamu yàlla laa jaamu yàlla laa Cheikh na Mariam oh. jaamu yàlla laa dañ ko laaj kan mooy yàlla dañ ko laaj kan mooy yàlla celui qui abreuve les pays et les créatures par générosité c'est pour cette raison qu'il est digne de louange je le loue dans la même manière à lui ses attributs lui le Seigneur des hauts lieux ñun ko bindal muni ساق البلاد والعباد فضلا لذاك كان للثناء أهلا مباشرة لبيوشعنا الشيخ سعد بنينا أثنى عليه بالذي أثنى على صفاته وذاته رب العروة نينكو كان مو يالا من celui qui procure subsistance au pécheur à l'adorateur aussi bien aux riches gloire à lui qu'aux ñu ni ko bindal loolu cheikh na cheikh saad bu mu ni yarzuqu lil aasi wa lil mutii wa lil rafii jalla wal wadii du bokkaale ku wékk ci moom du bokkaale ndax munta bokkaale dañ koo sax ci jaamu yàlla dañ koo yar ci jaamu yàlla moom cheikh na cheikh saad bu ci école baayam cheikh na mouhamed fadul képp ku fa nekk wuliw nga ndax baayam da leen yar ci bëgg yàlla moom cheikh na cheikh saadu abihi ñu ni ko kan mooy yàlla mu ni son antériorité n'a pas d'associé son éternité ne connaît pas d'autre souverain sa puissance ne te ne peut être attribuée à personne gloire habile ñu ne ko bind loolu mu ni qidamahu laysa lahu shariku baqaa'uhu laysa lahu maliku qudratuhu la yantasif biha siwahu subhanahu subhanahu jalla ulahu ida zulzilat al ardu zilzalaha wa الأرض al ardu ithqalaha wa qala al insanu ma laha yawmaidin بارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أما لو خمسين بوكي فتلك لنا يرسى بوكي بقي الله معلما في الإسلام ودين لنا يرسى بوكي توب سيدنا محمد مخدما في تاريخ الجيان نحن لا تكسان سفب

moom Cheikh na Cheikh Sadbu dee ci weeru koor texe la moom Cheikh na Cheikh Sadbu dee ci kaw deram julli deux heures ba pare texe la moom Cheikh na Cheikh Sadbu dee naan laa ilaha illa allah yonent bi moo ni woon man kaana axirul kalaami laa ilaha illa allah daxalal janna sayidina Muhammad nee na képp kuy géndi àddina sa mujj kàddu di laa ilaha illa allah àddina nga jëm cheikh jërëjëf yaa nafs fa xulli laa ilaaha illallah déglul waa 7TV ak ñi koy seetaan ak waa àddina góor gi góor gi dafa wane ni texe la dafa wane ni moom mandargay texe mi ci moom dee boo koy def dafa metti ndax sukkuraat danga ciy jaar te sukkuraat li tax mu metti mooy da ngay expiré rek doo bu buñ la doon xool géej gi du tax nga mandi Cheikh na Cheikh Saad bu nag jaarul ci sukkuraat moom yàlla ko bëgg moom bàyyi cheikh taalibu ya dafa toog jublu penku toog ci daram naan yaa nafs bakkan annal qabra nekk bàmmeel qaal la faahu tijji na gémminam bëgg maa lekk man cheikh na cheikh saad bu fa quli laa ilaha illa allah la tatax yaqul na cheikh bu nee na fa la taltahi anhu bi siwaahu bul am beneen préoccupation déedéet bul bëgg leneen fa quli laa ilaha illallah jàppal ba laa ilaha illallah ndax bàmmeel mi ngi nii ngaan bëgg maa lekk. دقل شيخ للشيخ سالم تذكري بي وحدتي اياه قل لا اله الا الله باي شيخ طالب يونينا فاتل كل يوم بكن بما نكاي تي ادنا ام اي اكتيفيتي منا دوخ منا داو منا واخ منا بند كون بوما ديمي تاي باي ورا ген ادنا فقل لا اله الا الله رب الكريم ما لنا سوى ايوا نيو نكو شيخ للشيخ سالم كان لا اله الا الله موني رب بور كريم بوباخ ما لنا سواه بربو خمني أمول نالين فقل لا إله إلا الله بدي لشيخنا شيخ سعد بو أدينا أدنى جويكو أسامان جويكو سوف جويكو القرآن جويكو لوح المحفوظ جويكو ييبا جوي شيخنا شيخ سعد بو حن الكتاب وحن اللوح والقلم والعلم والحلم والأسرار والحكم والأرض والفرض والانفال باكية والليل والنيل والاقمار والظلم والمرملات حنينا طالما ترى من احشاؤها والندى والجود والكرم لكورا ابليري لا تابلت ابليري لا بلوم لين لو لي سكري يب دانيو جوي شيخنا شيخ سادبو بك الايمان جهارا قبل ذا وزرت لما بكى اسفا نمجاته ديمو شيخنا شيخ سادبو xulóonoo bilaay dëgg la dina lislaam be nga woote ku la way am na dam boo ca dëkkee mu ramu la jaamu yàlla la jaamu yàlla la Cheikh na doomi Mariama jaamu yàlla la la bi la benoo ku la bëgg raw texe ku la bañ juum woo waaw waaw li ma leer ku leer nga jàpp yeneen ci bi ehe yoneen bee aslantu nafsi yow rekk yaa ma ko jaral ba na yaa gën ci yonent yi 7TV ñëw bëgg na bi li ma leer ay bu mu leere nga jàpp Seydina Muhammad bi mu juddoo moom moo ngi set ay yonent bi taxul deret taxul deret xetameet gëmam rafet bëtam ya tusngal moo ko wër dina yaa nga naan jomi na noo la war a xew xamatunu kaw asamaan dematunu ku naaw bi deew yi tas na tasar ñuulul weexul ba mel ni meew ay yonent bi mooy kilifay déew bu mu teew suy muuñ gémmin ga di melax rasul xonqul ba mel ni pawar wa ajmalu min kalam taraqat waay wa akmalu min kalam tali bi misaay xuliqta mubarraan min kulli aybi ka annaka qad xuliqta kama tasaaw kon li tax ma lay way du baat bu neexay jofeel ki dafu maa sonal man Mouhamed Alla Diop li ma leer ay mu leer nga jàpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan ñu rey dee nañ ba pare